ñu gis ni Faramareen macha allah da ngeen rëy euh, da ngeen bëri macha allah yàlla na yokku donc euh, ñu gis ni que euh, macha allah da ngeen di ànd seen biir bokk boole doon benn mais du ñàkk nag groupe famille boo gis day am des fois mu metti wala mu nakari lan nga fa jot a dund ak kenn si ñoom loo xam ne metti na la torop te mënoo ko fàtte. man de wax dëgg yàlla foofu ah, yàlla na yàlla na yokk de waaye lu neex rek laa fa dund ma fa lu naqare nax man gis nga li ma lay rek lépp lu ñëw mën damay jël sëñ bi teg ci këram jël sëñ bi teg ci ginnaaw kon lu naqari moom pour mu yomb ma du gaaw ndax man du tooñ te ku ma tooñ baal naa la kon tooñ barki maam Saraba. kon kan ak kan mooy concurrence. aar bi la aar bi yaatu na des fois. amul concurrence comme kan ak kan. yow Amady wala keneen ak keneen. moo tax moo tax li may wax déggoo ko man mënuma ilaa yow mi din mënuma concurrence ak Amady bu demoon ba yor beeke du ma concurrence ak moom. parce que budul dara sama maga te sama kilifa la. nan ngay amee sa kilifa ba pare yow ku moom li nga ne Pape Ngagne Ndiaye. Euh, gis nañ fi ay ñoo xam ne artistes yoo xam ne dañ leen di tette ba ñu màgg ñu xëy di concurrence ak. ma ne yow xalaat nga xëy di concurrence. Ah, ah, bul wax loolu. lu tax du ko wax. mais da ma laaj dama lay laaj dañuy waxtaan. lu tax. parce que ku ne am nga référence. ci li ngay liggéey tey yow ñaan nga yàlla romb ko moom. Mm-hmm. waaye xëy na nag am nga xelu bañ a bañ a defanteeg moom tey bu toogee di wax danga naan pat parce que sa kilifa la ci bépp bor ci liggéey bi ci xam-xam ci lépp donte yaa ko gën a féete xale gën koo mobile bu fu ngeen mën a dem mënu faa dem mais teewul sa kilifa la loolu am na ci lépp am na ñii nga àndal ñuy caméra am na ñoo xam bu ñu gisoon ay yeneen caméra caméraman yi dañuy daw jox la ñaari loxo nuyu leen parce que gis nga nit ku ne ci li nga yëngu am na ci koo xam ne teg nga ko bët waaye teg boo teg bët boobu noonu ça veut pas dire que ni foo ko fekk da nga koy diir mbagg wala nga koy teg épaule du loolu gars yi il faut am benn esprit boo xam dañu koy bàyyi mooy sénégalais li ma la wax sànq dafa gaaw a defante dafa gaaw a gis boppam. non du question de rëy ñàkk xam seen bopp la ak ñàkk comprendre tey Amady man ba muy fecc feccu ma yàgg naa toog ci télé bi wala ma jàngi école ba waaye seen ko muy ko kii boo koy daan seetaan sax da ngay naan waay kii na may def ba gis ko nii naa bëgg c'est valable pour tout le monde nag waxaluma sama bopp ñëpp laay waxal hmm? ku ci mel ni Papa Ndiaye noonu donte tey feccatul tey bu taxoon fii di fecc du saf kenn par exemple mais teewul tey man mii kat fu ma ko fekk dama koy cëral parce que bu dee benn fan la noo faa nga ko ko baa bëggeel sax mais faa nga ko bu dee benn fan la bëgg ngaa mel ni moom mais kon tey bu dem ba suñu borom euh, tëllal ko moom xaw laa may as tuut nga ne yow kooku da ko bëgg a def morom non du morom. parce que lu bëri li ne ci yow ci moom la ko suñu borom jaarale ndax parce que ci moom nga doon copier pour def yow pour nit yi buñ laa bàyyi xel. mais ni yow euh, xel bu nga am ñu bari am nañ. yàlla moo bind te yemale wut waaye dama ne gis nga nit ku ne booy booy déglu rek te tey. billaay di nga mucc ci erreur yu bëri man suñu borom dafa maa dimbale man ay ay paa rek laay àndal ay paa ay mag ñoom laay toogal di waxtaan non si am na loo xam ne boo ci bëggee génn faaw ngay gëstu nangoo gëstu Ria man jumloo ma du yomb ndax gps pèse bien mes mots xam naa li may wax xam naa li ma war a wax moo tax may la du ma tooñ te ku ma tooñ baal naa la ku ma tooñ te xamoo ma sëñ Bàmba baal naa la te yàlla tax waaye ku ma xam ba pare bëgg maa sosal yàlla ma yàlla àtt yow. yow ji nga dëkk. waaye tey gi nga boo amee ay mag yoo xam dañ laa dara ko ci mel ni Youssou Dieng Njoogu May ak Toumani ak Amady du def ak Pa Moussa du def dara te woowuma leen ne leen lii wala laa boo euh, Sëñ Fall dafa musa wax ni ku nekk ci yoon rek neex a yóbbaale mais nag boo jàppee ni yow mën nga lépp xam nga lépp kenn waru laa jiite doo jug ci yeey erreur loolu moo dal ñenn ñi nag. li nga wax de euh, ñu gis ni que Wally mu nekk macha allah mu nekk nit bu baax nit bu oyof comme ñëpp ni ñu koy waxee mu jàppale ñu bari yenn jeunes yi bari jàppale nañ seen milieu tey tey dañoo dañoo juge ci moom di ko wan wala di jéem a concurrence moom. yow sama benn wax bi rek ngay ñëwaat sànq ba léegi. dama bëgg nga wax ci loolu noonu. Ah, ku mel ni Bastoum ku mel ni Sidi Sidi Diop jàppale leen daf leen jàppale lu bari seen carrière mais tey gis nga euh, dañuy concurrence ak moom wala ñuy indi yenn yenn wëy di gaarawaale di jëmale ci moom. yow da gis loolu bari gis nañ waaw xëy na dañ ko def pour pour mën pour ñu mën leen dégg ndax wax dëgg yàlla fu mu doon ne jamono ji moom ku fi bëgg ñu dégg la faa nga songo waale waaw même bu nekkee sa xool sax ngay ngay bëgg a dee moom foofu boo bëggee ñu dégg la moom faaw nga dugg ci waale waaye waale defante ak moom daa yombul. ndax yombul. ah <laughs> yow saay borom borom ak borom borom pousse mënuñoo defante. xool rek yow kan ma. wax Sidi ak Bass Diop ak kan. bëri léegi xam nga pousse-pousse laa xoon puso daa rafet mbége mbége leen yor mbége waaw mbége mooy yooyu xale di dawal di puus loolu leen yor ñoom waaw waal de kuy bëgg kuy way ci jamono ji senegal bëgg nga mel ni moom mais euh, yi waa bëgg nañ mel ni ñëpp képp kuy way laa amul jeune amul pa amul mère yàlla na ko suñu borom suturaal nag dimbali ko ci pexe noonu nag wax ju ñaaw cat ak musiba ak balaa. non mooy centre du peuple Pape Diouf euh, euh, euh, dama ne tudd ma tudd kenn dama ne képp ku bëgg kuy way ci jamono ji bëgg ngaa mel ni Wally Seck laa wax. képp kuy way Sénégal laa wax. waaye saa man li wax li gë li eh, wax ni dara da ko gën a leer. non non il est hors pair Youssou Ndour c'est un père à Wally Seck il faut pas gis nga. léegi nag kaa wax la yaa ngi doon jiin sànq ay affaire fecckat yeeg artistes yi mais lu ci bëri c'est vous les fautifs. non je suis pas fautif ndax may man li ma la wax se très simple dama ne la Wally mooy chanteur du peuple ñëpp nangul nañ ko Youssou Ndour c'est le king léegi yow nga ne yow képp kuy wëy Wally xaw ma xaw ma na nga ko waxee noonu. comprends nga léegi man je voulais savoir non je voulais savoir ndax Youssou Ndour daf cee bokk wala bokku ci man li ma la laaj c'est simple oui ou non. moo tax man la yaa ngi commencé indi confusion. non ay Youssou Ndour ay Youssou ay Seck ay Baaba Maal if bokkuñu ci game bii booy ne. xam nga même ba ci football am na euh, premier division am deuxième division loolu daa am ci lépp déjà ñoom ñoo ngi pousse ñii dañuy ñëw par force waaw ñii tamit ñii di ñëw ëllëg dañuy pousse yi ñeneen dañuy ñëw mhm. àdduna moo doxee noonu balaa nga yor sa micro bi keneen moo fi nekkoon di wax te anamu. mu ngi ci lan ok tey yaa ne noonu la lépp noonu la waaye tey yéen ñii ñëpp ku ci ne am na koo xam ne teg nga ko bët bu ngaa mel ni moom mais noonu la demee. Euh, nga nekk si fecc bi ñu gisoon tam nga génnee benn single nga tuddee ko Poobaan pourquoi nga dugg ci musique bi. man de ma duggee ci musique war na. may sa Ndiaye Gawlay sama maam. Ndeye Mari Ndiaye Gawlay sama bàjjan. duñ Ndiaye Mengi sama doom bàjjan ñun sunu suñu famille ay famille waykat la parce que on est gawlo gawlo bi ngay dégg ñu koy wax ñi ñu ñooy gawlo man su ma wayee daa war yàlla nag moo ma kii nattu ba sama baat bi neexut ma ne xaar ma jéem a taasoog yooyu ñoom xaadim temps di ma jox ay ay bagages. xaadim moom mën na. waaw xaw na mën rek booy ñoom ñëpp a yam kenn xamu ci dara. <laughs> léegi euh, taas bu ngay def euh, da nga koy def pour plaisir wala danga koy def pour lan. waaw nit moom lépp lu muy jug rek yëngu euh, déjà plaisir moo tax. Mm-hmm. ndax loo amul plaisir mënut a sori. lépp li may wax la rek lépp looy looy boo buggee laaj nit ki sax war dëgg yàlla war ngaa mën a xalaat sa bopp ba pare am na yoo xam ni moom bu dul plaisir doo ci ne. Mm-hmm. lépp plaisir la. lépp plaisir moo la ci dugal. waaw ah mais bu ko duloon plaisir jaru ko. ñu gis sa benn benn euh, grand théâtre soirée waale nga doon fecc jékki-jékki jël affaire bi doo ko sa lii ba nga après ñu lay yëkkati ngay siisu lan moo la ci daloo si diggante boobu xam nga olof nee na bitel bu ne la mu def la sañ bee xeeñ te ñun wax dëgg yàlla bëgguñu ku dul Sëriñ Tuubaa xëy na sax wax ji dina xaw a jaaxal ñu bari waaye yenn saa dangay ngay dugg ci yëf di ci di foo di di ci jouer mais da ngay dem ba moom un moment dangay nekk ci biir ndax wax dëgg yàlla maa ngi ci biir affaire bi wax dëgg yàlla parce que man loolu laa bëgg te loolu lay dund waaw ñu bëri nag dégg naa ci ay version yi ne mais garaawul ndax man xam naa yàlla xam na. version non ay sa waay de cour bee safak daa gaañoog lu na dégg naa ko waaye yàlla xam na ni. damaa dem waaw non non mais parce que am loolu ma ci yëg moo ko xamoon du ma ko yëg. Mhm. bu ma xamoon tamit day ñëw it du demee noonu. ndax man musuma am image bu ñaaw ci télé. Mhm. ay dem ba arma tëdd ci télé ñu di jooy ñu koy for yooyu. mooy loolu mais boobu yëg-yëg la rek wax dëgg yàlla waa dem ba yëg ko <laughs> euh, euh, boo xam ne génnoogul mais vraiment mu ngi am buzz moo waral tey ñu seetsi woon ñu nga wax ñu tuuti rek sa single bi parce que ñu ngi waajal màggal ñu ngi waajal 18 safar nga nekk waaye bi ki ñu woy moom buzz sëñ Tuubaa xam nga sëñ ba ñuy wax buzz dafa mel ni moom moo taxoon mm-hmm. dëgg yàlla way bi génn gudd maa ngi ciy gis lu ne. non wax dëgg yàlla ñu ngi sant sëriñ bu wér te wax dëgg yàlla benn 30 secondes moo ci génn ñëpp di ko di ko di ko bëggee kon du way wi waaye kañ way la di ci profité di ci gërëm soxnaay dara mi nga xamante ni moo ñu fayal studio bi ndax ba ma ko waxee ni lii laa bëgg mu woo làmp tamit làmp jàpp ci wax dëgg yàlla yombalal ñu ko ba mu yomb mu fayal ma ñaari fan studio fay musiciens yi ñu ne déeta waaye ma pare waale du woo pak ne ko tundal clip bi ma koy fay yëkkati ay koppar wax dëgg yàlla xam nga ñooñu tamit ñooñu moom awma seen fay Wally Seck ak jabaram yàlla na leen suñu borom boole bañ a xajal benn masaw dijjaane seen diggante <laughs> sama xol bi laa ko tibbee barke maam Sara Wall ah, ab taali ab taali bi la war mel loolu da koy laaj sëriñ de man faytikat laa ab taal yow taalibe. man doo ma dugal. a